bi ñëw ak yéen ci suñu juróom-benneelu tomb ci burdatul madix di ci sàkkoo barke ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammadul Bushayri mel ni dafa fekk ñuy way yonent bi xaw ci lëjle wala xaw ci jaaxle tuuti mu ne daani wa wasfi ayatin lahu zahara zuhura naari xira laylan ala alami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mel ni waykat yi dañ koy way ku nekk jàpp jëm benn boor bu yi jël xalimbaam ñëw di participer ne bàyyi leen ma ma melal kéemtaani yonent boo xam ne dafa feeñ feeñ bu fis comme ne naaru xiraa feeñee guddi ci kaw kër mel ni di flotter mel ni drapeau naaru xiraa nag dañu wax ni arab yi dañu daan def ku am teraanga da nga daan taal naaru xiraa mooy sawaraw bernde boo xam ne bu timis jotee ñu taal ko mu fanaan a tàkk ba bët set du fay bu ko defee gan gu dugg ci dëkk bi nar a tumuranke da koy wóor ne bu duggee ci kër gale dana reer dana am fu mu fanaan bu suba bu fa jàmbatee soxla yi léegi léeg ñu fajal ko ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu sawara woowu feeñee ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ay kéemaanam feeñee mu ne kéemaan yoo xam ne fa durru yazdaadu xusnan wa hiya muntadimun wa laysa yanqusu xadran gayra muntaz gayra munt gayra muntadimi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ay kéemtaanam ni mu feeñee dafa mel ni wurus ci taar buñ ko nasee ni mu rafete ak buñ ko nasul dégere dégere dégere gramme bi du wàcc mukk da ngay gis ne or bu ñu ko doon jaay gramme bi li ñu koy jaayee ak lu muy yàqu yàqu yàqu moog bi ñu tëgg ñoo yem képp gramme nee na marta bu yonent bi ak dégëreem noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel kenn mënu ko séddale kenn buñ ko nosee ak buñ ko nosewul buñ ko wayee ak buñ ko woyul marta baam fa mu aju du wàcc mu moo tax mu ne fama tataawalu amal al madihi illa ma min karamil axlaaqi wa siyami mu ne lan lay sutlante taggkat yi seen mébét yi di sutlante ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir la nekk ci moom ci barke ak teraanga ak màgg ak rëy jikko ak tedd nga nee na lim ci ëppalante ak di ko njëkkante nee na lan la lan la dara waralu ko lu du mbaax gu ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tedd nga gu ne ci moom ñi di ko jeexaat ngir for ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ayaatu xaqin min arrahmani muhdasatun qadimatun sifatul mawsuufi bil qadami waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ay aaya yu la ko yàlla wàcceel di ko nettali ca alquran yoo xam ne sax jiitu nañu di ko melal ñoom tàggkat yooyu laata tàggkat yi di ko tagg fekk na yàlla melal yonent bi ci alquran sallallahu alayhi wa sallam melal woo xam ne ñi ko fi jiitu sax amuñu woon melo ndax ku fi ñëw ko ne li nga baax li ci yonent bi nga ko baax le moo tax mu ne lam taxtarin bi zamanin waxya tuxbiruna an il maadi wa an aadin wa an irami mu ne jamono dikkul di lëkkale di ñu xibaar xibaar yoo xam ne ci ñi fi jiitu woon wala delluwaay bi mu jëm muy àllaaxira ak xeet yu ñu fi jiitu woon ku ci mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul dalee ko ca giiru aat ak giiru iram ak ñi fi jiitu woon ak yonent yëpp ku ci mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon jamono mënut a composé ko mel ni moom mu ne daamat sax na la day naa ci ñun fafaaqat kulla mu'jizatin mu kowe bépp bépp kéemtaan moom yonent bi sallallahu alayhi wa bu fi yonent mos a def ak yonent bi yonent bi féete na bosam kaw mina nabi yi ne ci yonent yi fi jiitu woon isjaa at bi ñu dikkee wala taddu mi te seeni kéemtaan sax saxu fi ndax ñoom li ñu def bi ñu ko defee ba pare mujiza ba dafa àndaat ak ñoom dem waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujizaam moom dafa continuer des fi ba léegi waaw li ko melal nag mooy alquran moo tax mu ne alquran jooju muhkamatun fama tubghina min subuhin li zi shiqaqin wala tabghina min hakami mu ne alquran tirbinal la boo xam ne dafay plaideel ñi nga xam ne dañu am ñuggu-ñugg ci seen biir alxuraan bàyyiwu ca dara amul dara lu lënt lu mu leeralul amul dara lu lëndëm lu mu leeralul moom alxuraan bàyyiwul dara lépp àtte na ko ba teg ko ci yoon yow kay yaay yi ñëw jéem a wuti sa procédure bopp tënk sa constitution bopp ne bii laay àtte woo mais yàlla moom rëddal na la ci alxuraan fi nga war a jaar moo tax mu ne maa xuribat xattu illaa aadil min xaribin aadal aadi ilayha multaqi salami waaw alquran musta xeex attaqué xeex yàlla musu ko sant yonent bi lu dul ne daf koy défendre loo boppam rek bu ñu la attaqué daal fayul bu ñu la tooñee fayul ci yooyu rek la ko yàlla bi waaye attaqué guerre alquran musu ko def musu ko wax lu dul noonu bu féttéerlu boo xam ne daas nga sa jaasi pare fas naa daje moom su boobaa moom dana daje ak yow te dana la nërmeel moo tax mu ne raddat balaagatuha daawa muaaridiha raddal xayuuril jaani anil xurubi alquran daal balaaxa bi ko yàlla ràbbe dafa jot sëkk sëkk sëkk amul dara nuxaat yi fi ñëw yëpp lu seen xam-xam rëy rëy rëy lu seen grammaire xóot xóot xóot amuñu dara lu ñu mën a corriger ci alquran parce que ko ràbb du nit ki ko ràbb du nit moo tax sunu maam Serigne Touba radiallahu anhu daan wax ni kitaabun karimun min karimin mukarrimin li abdin karimin lil karimi bu ko defee rek tabarakallahu sëñ Tuubaa nee na téere boo xam ne euh, bu tedd la jóge ci ku tedd ñu wàcc ci ku tedd ñu jox ko xeet wu tedd parce que alquran a tax jibril doon sangu malaayika yi alquran a tax yonent bi doon sangu yonent yi waaye alquran a tax ñun ñu doon sangu xeet yi kon mbokk yi alquran foor na moo tax mu ne raddat balaa ba tuxaa balaa bi ko yàlla ràbbi dafa jot sëkk dafa jot sëkk dafa couvrir ba couvrir comme nit borom kër tey doon uufee njabootam di leen couvrir ci saay-saay bu doon dugg ci biir kër gi bëgg ko yàq mu wóor la ne da ko yàq fulla ji nga ci wane ñoŋ gi ngay wane ci sa biir njaboot alquran mel na nu ko raw ci biir ci ci biir lislaam mu ne la ama anil ka mahjil ka mawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fi lxusni walqiyami alquran daal am na ay delluwaay yoo xam ne dafa mel ni duusi géej waaw ay kéemaan yoo xam ne ak i delluwaay moo raw sax duusi géej ci mat waaw wa fawqa jawharin moo gën a kowee wurus ci rafet ci ni ko yàlla ràbbe wal ak daraja waaw ni yàlla ràbbe alquran nose ko ko ba mu jub defu ko leneen amul leneen lu mel ni alquran loolu yàlla defu ko ci beneen téere moo tax mu wax ne fama fala fama tuaddu wala tuxsa ajaibuha wala tusaamu alal iksaami bi salami waaw alal iksaari bi salami moo tax mu ne kenn tam melal wala nga takk kéemaani alquran wala nga di ko lim ci bari gum bari walla lu dul ne rek da nga yokkat waaw boo bëggoon a lim ne alquran sama papa daana dégg mu daan wax ne koo dégg ñu ne moo man alquran rek dañ koy nax mu ne waxi yàlla la du waxi nit nit du ko man dees na ko miin nag waaye dees ko man waaw dégg alxuraan dëgg dëgg dëgg loolu kenn mënu loolu tabaarakallaahu jagle rek la wiqa euh, euh, jagle la xusuusiya la rek mu ne xarrat biha aynu qaariha fa qultu lahu laqad zafirta bi hablillaahi fa'tasimi mu ne alquran féexal na xolu ki ko jàng féexal na xolu ki ko jàng ba ñu ngi koy wax sax ne yow day kiilu nga wala yow sax de texe nga wala yow sax de mooy nga mbaa yeewu nga sa bopp bi xablillahi ci buumu yàlla gi faatasimi na nga ca mooy alquran mooy buumu yàlla gi nga xam ni mooy alquran tey mooy miracle bi nga xam ne moom la fi yàlla dese nga xool téere bi ñu ne la lii wax yàlla la loolu ku mu réyul ci yow rek xamuloo degré alquran moo tax mu ne in tatluha xiifatan min xarri naari ladda at fa at naara ladda min wirdiha sabimi moo tax mu ne su fekkee da nga jàng alquran jublu ca jàng ga nga koy jàng ngir mu fegal la sawaraw la baa mu ne alxuraan dana la mujj fayal sax sawara wa dana mujj fayal sawara wa ak ndox mu set guy waaw alxuraan mën na lu ne ka annaha alxawdu tab yaddu tab yaddu wujuhu bihi min al ussaati wa qad jaauhum kal xumami mu ne alxuraan daal dafa mel ni ki diig boo xam ne suba soo xëyee sangu ci ba set wecc da ngay mujj yëg ne rek da dem ba sa cëlmaay bi lu mu lëndëm lëndëm day mujj leer naññ jàngkatu alquran foo ko fekk dëgg dafay leer kanam nga day set wecc day leer lu mu bari bari bàkkaar alquran mën na ko raxas waaw waka siraati mu ne aw yoon wu jub dafa mel ni alquran wakal misaani balance dafa mel ni alquran ci maanu fal xistu mu ne nattuwaay dëgg dëgg dëgg wala jubluwaay dëgg dëgg dëgg min xayriha ci feneen fu du alquran fi naasi ci nit ñi lam yàqu mi du taxaw waaw ku fi tegg atteb yàlla bi atte woo ji leneen lu du alxuraan doo mujj fenn fudul ci wuy sama ndey waaw ndax alxuraan moom yàllaa ko waxal boppam ne wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayika humu zaalimuun fa ulaayika humul faasiquun fa ulaayika humul kaafiruun waaw ku fi jéggi li yàlla tëral atte woo sa atte bopp ci tooñkat yi nga bokk ku ko def ci faasiq yi nga bokk naaféq nga kàccoor nga ku ko def ci tooñkat yi nga bokk ku ko def ci yéeféer yi nga bokk moo tax alquran rek mooy dëgg mu ne fal qist min gayriha fi naasi lam yàqu mi wa ci leneen lu du alquran du taxaw mukk du wér mu ne laa taajaban li xasuudin raaxa yunkiruha tajaabulan waxya aynu xaadiqil fahimi mu ne bul yéem ci ka añaan weddi gi mu weddi alquran ci réer rek la ko te parce que xut xóotu dégg munta àgg ci dégg alquran moo tax koo gis muy weddi alquran ak di ko déngat dégg-déggam des naa xóot waaw waqad tunkirul aynu daw u shamsu min ramadin wa yunkirul fammu taxmul taamal maa i min saqamin waaw mu ni bët mën na weddi leeraayu jant wala leeraayu làmp ngir feebar bu ni ci bët ba moo xam dafa cataracte moo xam dafa wànnant moo xam dafa myope mën nga weddi ne jant bi leer na parce que sa bët moo feebar mooy xol bu feebar du mën a gën du mën a nangu leeru alquran mu ne gémmiñ tamit mën na weddi caf ko ndox yéen feebar bu nekk ci borom yaram la parce que bu sa yaram feebaree léegoo la nga dégg ñu naan sama gémmiñ ngay lewat sama gémmiñ pourtant dara nekku ca ba muy lewat yow yaa soppeeku moo tax sa gémmiñ soppeeku moo tax nit saa boo demee ba weddi wax yàlla rek wala nga di ko diingat jàppal ne am na feebar bu dugg ci yow parce que yàlla rëy na rëy boo xam ne ci xol rek la xaj ci doomu aadama am na fulla ju toll nii it bu fa fekkee dara day génn bu ko fa dara fekkee mu génn kon yàlla ñu yàlla defal dégg a topp te yàlla def ñu ay dëgg-dëgg soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu